yegg si nañ ci fas yéene cee dalal jaamu séeréer bi Seydina Omar Ba ñu ngi lay nuyu kii Abdoulaye naka suba si am nañu mbégte lool fegook yow ah, fii la ëpp Abdoulaye askan wi yaa ngi fegook ñoom ñu ngi ñu ngi lay taataan baatu askan wi bëgg a gindeeku leerlu ci leeru jamono Walf Quotidien lu ñu xëyee tey waaye yéen kay ngir Walf Quotidien dafa xëyee dellu si waat yi nga xam ne opposition bi woote nañ ko ni ki mu doon manifester jàmm ngir woon Sénégal ne Sénégal daal jot na état de droit ñu daal koy dellu siwaat noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale yéen gi ne vendredi fa la hmm. euh, njiital parti Pastef mu ngay woo askan wi ci résistance ne yéen kaay moo xëy fësal ci jamono jooju lee cadre yi ci parti bi di euh, cadre yi nekkee fale ci diwaanu Ziguinchor hmm. euh, ñu yëkk seen cadre kon di sàkk ci président Macky Sall kii di Ousmane Sonko mu ñibbi këram noonu la ko yéen gi di Walf Quotidien xëy fësale Abdoulaye. Euh, fës na ci l'info. yéen a kaay gii di l'info ne sur les listes électorales mooy Ousmane Sonko fexe daal ba bañ dellusiwaat ko ci liste électorale yi lee nee na fu mu toll nii tey jii moo a kaay gii di wi ñoo ko moom askan ñoo war a mbedd mi fexe ba instaurer démocratie ci réew mi noonu la ko yéen a kaay gii di l'info xëy fësale ay démboo tamit wax na ci décision bi nga xam ne juge Sabassy Faye jël na ko te ñoom droit boobu la ñu moo ne arrangé moo tax ñu yóbbu ko fële ci cour suprême ngir kase ko noonu la ko yéen kaay gii di l'info xëy fësale dee ci euh, maanaam euh, bataaxal bi nga xam ne ni Ousmane Sonko yëkkati na ko daal di ci Sénégal yi lée nee na ma ngay woo Sénégal yi nga xam daanaka justice dafa leen yitteel mhm. nañu organiser wu kon tey jii dañu xam le quoi cour ak juge nga xam ñoo fa ne Ali Ba kenn la si ñoom Abdoulaye Ndiaye kenn la si ñoom Fatou Faye kenn la si ñoom Ibrahima Samb ba ci Aïssatou Diallo Ba kenn ku nekk yéen kaay gi mu ngi xam la say jaar-jaar lépp kon mu ngi ci yéen kaay gi di source leneen tamit loo xam yéen kaay gi xëy na ko fesal te mooy appel résistance bi nga xam Ousmane Sonko woote na ko état bu Sénégal nag dafa seen wu ñu yoxe yoxe benn yoon daanaka daal fas euh, commencé ne daal e dëkk bi noonu la ko yéen kaay gii di source ak xëy fësal Seydina Omar Ba le mandat yéen kaay gii di le mandat ne présidentielle 2024 tey jii ñu ngi jëm ci vendredi boo xam ne ni lu rek rek mën na am noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale Ousmane Sonko ndax dafay bokk ci liste yi mm-hmm. wala dafay jaare kon uti leneen noonu la ko yéen kaay gi di la mandat xëy Fisal Abdoulaye euh, critique yéen kaay gi di critique dafa sol ay daalama utali fële ci diwaanu Kaffrine wax ci ndaje conseil des ministres décentralisé bi ñu fa amal yéen kaay Guinée juróom-ñaar téeméer milliards ci le président eh, mu ne noonu la ko kaay gii di critique xëy Fesal Abdoulaye Le Soleil génnagul ndukuma juróom-ñaari téeméeri milliards ci suñu koppar moom le président Macky Sall bëgg dugal fa la ci PIP PIP nañ ko xam programme mi ñu doon amal ni ki démb foofee ca diwaanu Kaffrine euh, Tribune taxaw président Macky Sall ngay amal tournée goo xam ne daanaka li ko tax a mooy mooy tàggatoog askan wi waaye tournée googu leen si xaw jaax rek mooy milliards yaa ngay taw noonu la ko yéen kaay gi xëy fisale eh, diwaanu kaw kaw rek rek daanaka hmm. yóbbu na lu ci tolloog téeméer ak juróom-ñeent fukk lu ci junni ci eh, li coow li mooy président Macky Sall la doon xaar ci moom waaye mu wax ñu milliards yi xam ni jot nañ ko woote daal ci diiru ñaar yi fan la ko dugal noonu la ko yéen kaay gi de la tribune xëy fësal Abdoulaye donc stade moom la mu fësal stade xëyee dellu siwaat ci match nga xam war naa dox ci diggante Sénégal ak Soudan du Sud ah. Euh, ñu ngi koy jàpp ni ëllëg ci samedi jëlee fële ci stade Abdoulaye Wade euh, démb nag suñu gaynde amoon nañu ab galo d' waaye daal démb moom daanaka ci intensité. Mhm. la ñuy gën a fus la ñuy gën a la ñuy gën a fusé wu. noonu la ko yéene kaay gi stade xëy fësal ab suñu lamb ku mu géewal tey. non ñu joxee démb kaddu gi Siteu. Mhm. tey jii nag dañuy jël kaddu gi jox ko nag Degueur numéro 2. Lac de Guiers numéro nag xamal ko ne ko bi bu yaakaar ne dafay taxaw di ko xaar dafay nax boppam mhm. dana ko attaqué nag waaye bu koy attaqué nag xel la koy attaqué noonu la koy attaqué kaay ngir suñu làmb xëy fesale Abdoulaye fës na Seydina Ba ñu lay jaajëfal amoon mbégte lool dalal la ci